waaw salaamaaleykum euh, tout d'abord maa ngi nuyu ñëpp man la président de Damel Abdoulaye Massal di sant euh, la presse bi nga xamante ni tey ñoo ñëwoon couvrir événement bi euh, rafet na lool macha allah yéen a ko taaral ba fu Sénégal Tivaouane nekk ci Sénégal seetaan na ko en direct muy présentation wu Damel de Tivaouane jour yi nga xamante ni ñoom la bëgg a ci saison bi di deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq ñu ñëwoon tey fii ci municipalité bi pour présenter ko Tivaouanois yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu aussi la municipalité bi nga xamante ni ñoom ñoo ñu ubbil bunt yi fii ñu dalal fii euh, Tivaouanois yëpp tey euh, di rafetlu lépp li nga macha allah Tivaouanois yi wuy si nañ xam ni rek euh, ñoo bokk mbir mi muy footballu Tivaouane club bi nekk set année national 1 Tivaouanois yëpp war ci jàpp te waa Tivaouane ñi ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax. rawatina jàpp bi à travers comité de supporters bi nga xamante ni ñoom ñu ngi ci liggéey euh, liggéey bu am solo am ci ay initiative yoo xamante ni euh, taxawal nañ ko euh, di ko sumbandoo di ko dóorandoo ba nga xamante ni mi ngi sotti ñu lancer ay cagnotte ci bu équipe bi soxlaa xaalis Tivaouane yëpp def ci seen loxo ba nga xamante ni tey équipe bi bu ñëwee national 1 faaw ñu gërëm leen sant leen. waaw euh, mën naa ko tudde partenaire ndax euh, dafa am ay doomu yoo xamante ni dañu yàkkamti woon euh, nitu Tiwaawan wala footballu Tiwaawan sport en général ñëw seet si leen amu yoon porte d'entrée tey jii bi ñu ma joxee mandat bi nga xamante ni mooy président wu Damel li ma njëkkoon def mooy recenser Tivaouanois yi nekk Sénégal yëpp yor ay entreprise yàlla may leen dara Tivaouane nag ça ne veut pas que dëkk biir Tivaouane mais boo dëkkee ci tundu Tivaouane ci Tivaouane nga bokk ma waxtaan ak euh, Tanor confection bi nga xamante ni ci tund Tivaouane la dëkk mu nekk Ndakaaru di liggéey euh, ci wàllu mayo di liggéeyal ay club yu mag ma dem seeti ko waxtaan ak moom ni ko nag kuy wàll yaan dafa fekk sa dëkk tëggul mu ni nag Tivaouane moom fa bokk boo leen gisee maillot yi ñu defoon yëpp maillot de qualité la mu defaral ñu ci ba pare ñu jox ko mu ni dinañu may moo xamante ni participation ay loisir ba pare may ñu ci mutuelle de santé boo xamante ni foofu la signé lu tolloog 30 jours ba pare ni encore dina accompagner équipe bi loolu moo waral teewaayu tey euh, moom le directeur général de Tanor Confection mu teewoon fii. laataa ñuy jeexal euh, cette mooy seen bi suñu objectif mooy équipe bi dafa ñëw ren national 1 te ñu seetlu ni Sénégal équipe yi fi monté en national 1 yëpp yàgguñu ci national 1 bi dañu ñëw def tremplin dem ci ligue professionnelle bi ñun suñu objectif ren loolu kese la mooy doomu Tivaouane yi fexe nañ ba ñu dajaloo fexe nañu ba Tivaouanois yi bëggaat équipe bi. fexe nañ ba Tivaouane yi di topp equipe bi fexe nañ ba Tivaouane jël seen xaalis di ko def ci équipe bi donc cette année li ñu wax moo leer mooy li nga xamante ni moom la ñu bëgg mooy dem ci ligue professionnelle bi bokk ci compétition yi nga xamante ni équipe yi mag yi foofu la ñu nekk te cette année si lañ ko mën a tàmbale lañ koy door année bii lañu teg paay te année bii buñ ci defee njàmbaar mën nañu bokk ci ligue professionnelle ci saison ba di ñëw te yaakaar naa ni Tivaouane yi ñoom ñëpp conscient woon ci loolu

club fekk mi ngi am xaalis budget am ay dirigeants yu yu dëggu club bi dafay avancé football yi nga gis ci àdduna bi yëpp ñu leen di ñu leen di tudd seen matière première xaalis la ñun budget bi nga xamante ni dameel muy 41 millions la ñu soxla woon yàlla def na ci diiru bii di ñëw le président Ablaye Ndiaye Ngalgum nee na jëndal nañu bis dinañu ko livrer donc suñu budget bi lu ci ëpp wàññeeku na. ndax transport dafa bokkoon ci li nga xamante ni dafa nekkoon si souci club bi moom le président Abdoulaye Ndiaye Ngagou réglé na ko donc ci bis bu diir dinañ jox bis boobu mu ñu wax. leneen li aussi mooy financièrement sponsor yi yaa ngi gis sponsor dugg na muy ki nga xamante ni moom mooy euh, seen caane pâtisserie tey gis ngeen ko ci salle bi am na som bu mu yëkkati jox ko club bi. li ci des aussi mooy Tivaouane yi bañ a bàyyi rek continuer seen xaalis yi suma grand koy wax mu ni dërëm dërëmu Tivaouane yi ak ñaar dërëmu Tivaouane yi. moom mooy barkeelu équipe bu Tivaouane bi loolu bu ñu ko defee rek équipe bi dina tegu ci yoon yi nga xamante ni foofu lañ bëgg mu dem sur le plan mental joueurs yi pare nañu sur le plan physique dugal nañ joueurs bi nga xamante ni hivernalu nañ ba pare donc pare nañu pour démarrer saison ba te bu ñu demaatee ba mi saison aussi dinañu taxawaat xool lan moo doxul ñu dobbali ko pour mu gën a dox